right bitik baa ngi nii bitik baa ngi nii dafa yaatu ba nga xam ne dama kontaan trop dafa yaatu yaatu yaatu yaatu oh my god gis ngeen num yaatoo ah yaatu ba gis ngeen num yaatoo xam waañam xam wanagam xoolal fii rek ñu mu yaatam fii sink bi fii la nekk you know bi fii moom xawma lan la alright fii dafa xawma nag fii fa amee bën xam naa gars yi dinañ ko wecc dañ war a wecc weer bi dinaa leen ko laaj loolu lan la but who cares guys because boutique bi dafa yaatu te lii soo ko waree xam si yeneen place yi xaalis bi ñu lay wax ba nga dee doo ko defar doo ko defaat léegi lii wees obviously dañ ko war a clé nii noonu gars yi dinañ ko defar la you know But look at this. Just take a this, okay? Take this. guys. Gis ngeen nu yaatoo gis ngeen yaatoo ay bitig bi ndax gis ngeen ko laa leen wax fii rek gis nga nu yaatoo fii rek gis nga nu yaatoo hmm? fii rek mun nga fee xam lool fooy denc sa yeneen bagage sa storage hmm? gis ngeen bitig bi yaatoo ay lu mu gis ngeen lii waaw waaye liggéey bi pareegul si suuf bi dañ ko war a defar rek yéen a wane fa waaye gis ngeen bitig bi nu mu yaatu